mooy raar na lool nga gis ci àdduna bi kenn nit mu formé benn hebdomadaire mu am juróom benn fukki at ak benn mm-hmm. te moom def na ko parce que 1960 la defoon Jeune Afrique euh, tey ñu ngi ci 2021 donc journal bi mu créé def na juróom benn fukki at ak benn mais yamul foofu Béchir benn Yahmed dafay nit koo xam ne nii dafa bokk ci combat yi nga xam ni yépp Mom la Afrique ak nit ko ñuul ak tiers monde porté parce que nit ñi fait ñuy de ku Fidel Castro la ku jege won Ho la ku Che Guevara la donc combat mom rek Afrique ci ak africain pour démocratie am Afrique pour liberté am Afrique contre na contre apartheid Afrique du Sud ñëpp xam ko mu def ci jéego yu bari waaye balaa boobu nag xeex na aussi pour tiers monde maanaam pour Cuba pour Indochine pour Indonésie parce que moom dafa gëmoon tiers monde dafa gëmoon décolonisation Sénégal nag dafa am histoire bu particulière ak Béchir Bani Ahmed parce que euh, moom moo ni ma Senghor bi mu décidé pour dem wax na ko ko juróom-benni at ci ginnaaw

mu yónnee waat la ko juróom-ñaari yoon ci benn bis jël encre verte la doon bindee parce que c'est quelqu'un boo xam ni satisfaire ko dafa jafe man def naa fukki at Jeune Afrique musuma wax ni def nga kayit bu baax musuma ko wax benn la mosa wax ni def nga lu baax benn livre bu ma bind Sénégal laa ko bindee mooy c'est goulot qui étrangle Sénégal bi ma ko ko joxee pour mu corriger ko liir ko bi mu ko liiree daf ni ma livre bi moom ni nga ko bindee baax donc noonu la meloon maanaam day nit koo xam ni dafa gëm compétence dafa gëm lu baax patron la boo xam ni heure boo xëyee suba ak loo teel teel moom moo lay jiitu ci liggéeyukaay bi et puis mësuma gis ku mel ni moom amul rajo buy wax ci àdduna bi te du ko déglu amul journal bu ñuy bind ci àdduna bi du ko liir amul livre buy génn ci àdduna bi te du ko liir man mësuma gis nit ku mel noonu c'est-à-dire euh, amul benn information buy am ci àdduna boo xam ne nii mën nga toog conférence de rédaction Jeune Afrique wax ko te Béchir Ben Yahmed xamu ko. alors yaa yaa ngi wax euh, confidence bi président yi doon confié wu ci moom jël nga l'exemple de Léopold Sédar Senghor ni nga ko waxee nga liggéey ak moom euh, tey en quelques mots lan nga koy rendre hommage. hommage bi ma koy rendre d'abord dafa def loo xam ne nii benn africain mosu ko def parce que xam nga il est très facile d'être fort dans un pays faible nga am doole ci réew mu am réew mu ñàkk doole dafa yomb. li jafe mooy nga am doole ci réew mu am doole moom loolu la def dafa bàyyi réewu Afrique yépp dem France fa affaire yi méttee mu def fa dara samp ko taxawal ko ba mu taxaw kon xam nga kooku bokkul ak ñeneen ñi nga xam ni dañu am doole ci réew yu ñàkk doole moom dafa am doole ci réew mu am doole loolu dafa am solo beneen bi ci topp mooy intellectuel yu bari Afrique journal boobu moo leen formé tey ku mel ni France fano jaar na ci journal boobu Kateb Yassine jaar ci journal bobu Leila Slimani nga xamni ne nek de prix Goncourt ya même pas fala ci journal Amin Malouf jaar ci journal bobu manam honneur le, bu mag ci africain nga jaar ci journal parce que on a beau dire mais journal de dafa am ñaar yu ko caractériser bind koy bind bind bu leer la ku bind information yi ñu fay jëfit information yu yu yu yu yu mucc ayib la yoo xam ne du ko nekk ko mën a am donc loolu nag daf ko dajale mu dajale ko rek sur 60 ans ci juróom benn ak benn mais yemul loolu parce que mënoon na jël journalam rek yem ci di jaay journalam di jaay publicité am di am xaalis mais deful loolu man gis naa ko ba tàyyi mu digal ay njiitu réewu Afrique lu baax gis naa ko ba tàyyi problème am ci njiitu réew Afrique entre ñaari leader exemple loo xam ne dafa nar a non dafa am yoo xam ne aussi dafa quand les acteurs sont vivants am na yoo xam ne du ma ko mën a wax mais par exemple mën naa la par exemple ne la euh, Ouattara ak bé ba Bédié bu ñu demee ba def RHDP 2005 Paris moom joué na ci lu bari da nga wax bi. bu ñu demee ba na cuyate ak Lansana Conté benn moment réew ma tàkkul moom joué na fa lu joué na ci lu bari te loolu lu ma fekke la maanaam yëf day metti lool mu woo ñaari nit yëpp wax ak ñoom affaire yi ni tekk loolu def na ko ba taay ma gis ko diggal na it ba taay ay njiitu réew keroog bi may rendre Idriss Déby euh, hommage maa ngi wax benn scène boo xam ne dama ko dund fekk ma invité Idriss Déby conférence de rédaction Jeune Afrique en 2010 Déby agsi mu ne ko da nga war a génn ci nguur gi waaw mun waaw mun ko parce que lu ëpp presque ñaar ko ata ngi ni yaa ngi ci nguur gi et boo jógee ci nguur gi càddu du jeex mënoo kon ne di gëmloo sa bopp ni yow tant que nekkoo ci nguur gi rek réew mi du ki mi na ko parce que réew mi da doon exister avant yow te boo fi jógee si réew mi day am bon Idriss ni mu ko jëlee neexu ko te wax na ko ko aussi nako wala man xëccoowu ma nguur parce que man sama aduna yépp dama ko xeex parce que li may dund bul yaakaar daf ma neex parce que man 37 ans laa jot ci nguur gi boobu léegi damay xeex sama famille mosuñu jot ci man sama mbokk mosuñu jot ci man sama jabar bu ma gisee rarement di wax daal wax daal nga xam ni kii li mu wax mer na mais bi histoire demee ba dem ba dem da ngay xam li Béchir waxoon dëgg la parce que man looloo ma gën frappé ci moom am na yu bari yu ma waxoon ci ay homme politique africain par exemple bi mu njëkkee gis Idrissa Seck am na lu ma waxoon loo xam ne bi ma demee ba dund gis naa ko non dama la ko wax. ah dama lay dama lay wax rek c'est-à-dire dañuy expliquer rek ay dix defal ndànk rek que Idriss Déby xam nga xam nga loo gis dafa am dañuy classifier di déclassifier. Mm-hmm. Mm-hmm. Idriss dundatul. booy wax ci ay personnages yu vivants yoo xam ne ba léegi ñi ngi ñi ngi ci politique ñi ngi dund ñi ngi wax. dafa am loo ci mën a wax ak loo ci mënul wax dégg nga wax mi mais dama ne dafa am personage yu bari yoo xam ni par exemple man watara bi may wax ni dina jot ci nguur gi boobu mën na fukki at avant watara ci jot ci nguur te boobu kenn xalaatul woon ci àdduna ni watara dina mot jot nguur dama lay pour jox la exemple rek pour wax la moom ni mu xame woon. ni mu la wax ci Idi ban année la la ko wax. bu fekkee bëggoo wax lan la aussi. ban période la 2004 la ma ko wax. mais loolu amul solo parce que xam nga Sénégal aussi. faaw ñu bàyyi ay controverse ak polémique mais li ma la bëgg a wax mooy mosuma gis homme politique bu même Idriss Déby Béji Benyamin nee na ma ci bureau mhm. bu génnul ci nguur gi nim ciy génne du baax donc man loolu dafa ma jaaxal ci moom c'est-à-dire xëy na peut-être aussi li ci yàgg la mais am na dirigeant yu bari yoo xam ni tëjoog man na ma nii nii nii nii nii nii nii te bu ñu demee ba ci biir alors alors autant d'exemples il wax a, xamante def na mais également Jeune Afrique ben instant ñu koy reprocher lu jëm ci mbiru euh, que mën na sax bind euh, ci président boo xamante ne nañ ne c'est le plus offrant euh, loolu lan lañ ci mën a jàpp tey bi nga xamante ne na bon voilà léegi déjà ben affaire dafa am amul ben média ci monde bi bu soxlawul xaalis yéen Sen TV da ngeen am ay annonceur bu ngeen amul annonceur du ngeen fay seen salaire ba pare amul benn média bu indépendant à cent pour cent seen TV fii du lu neen la fi nit mën a wax loolu amul c'est pas vrai amul ça n'existe pas média bi indépendant mooy média bi nga xam ni kenn xoolu ko wala kenn dégluwu ko média bu amul impact moom mën naa indépendant mais média bu am impact dafa am ay force yu muy dëkkal force yi force xaalis la force yi force nguur la parce que loolu mooy réalité bi donc indépendance arbitrage la arbitrage la indépendance absolue amul fenn amul kenn koo xam ne nii sañ ngaa bind lu ne wala sañ ngaa wax lu ne wala c'est faux c'est pas vrai donc indépendance amul par contre honnêteté am na honnêteté mooy lan parce que ñun nit lañu journal boo gis journaliste boo gis am na lu muy sentir am na lu muy bëgg enjeu boo gis Sénégal fi, par exemple homme politique amna am na ñu ma gën bëgg ñoo xam ñom la gëna bëgg ñeneen ñi man je l'assume am ñoo xam ñom la gëna sentir amna ñoo xam ñom la gëna wolu donc objectivité amul amul parce que loolu yàlla bindewul nit noonu mais honnêteté am na honnêteté mooy lan même boo faree bu ko wane ci li ngay jëfee même boo faree ki nga faral bu nekkul ci dëgg amal fulay wax ni nekkul ci dëgg donc loolu moo am maintenant nag Jeune Afrique man sama expérience laay wax def naa fa dix ans bind naa ci réew yi gën a sensible ci Jeune Afrique bind naa ci Côte d'Ivoire bind naa ci Tchad bind naa ci Congo bind naa Union africaine maanaam réew yi gën a sensible bind naa ci Angola Angola yàlla pétrole bind naa ci Guinée équatoriale maanaam réew yu gën a sensible bind naa ci ci contexte yëpp bind naa ci. te kenn mësul a taxaw ak man na ma bindal li wala bindal li loolu mësul am mësuma bind benn papier Jeune Afrique ñu censuré ko mësul am man sama expérience bopp laay wax man. donc li ñuy wax ne dañuy bind ci kii le le plus offrant loolu noonu weddi nga ko tey. non loolu euh, dañuy jaawale xam nga euh, Jeune Afrique dafa am ñaari pàcc dafa am pàcc boo xam ni publicité la mooy les plus. yooyu c'est des plus reportages yoo xam dañ koy def ci réew boo koy def ci réew mi surtout yi nekk ci réew mi dañuy profiter pour def ay annonce ci loolu loolu publicité la loolu bokkul ak page rédactionnelle yi nga xam ne ci la information bi di nekk mi ngi niroog yéen xam nga da ngeen di def seen émission ba ci ak ngeen arrêté ko jël benn produit wax ni non produit bi nii la mel nii la parce que da leen di fay xaalis te xaalis boobu ñu leen di fay moo tax ngeen di fay salaire moo tax ngeen di fay électricité moo tax ngeen di dund. Jeune Afrique aussi comme luxusul xaalis. mais loolu dañ koy séparer ak li nga xamante ne mooy liggéey. mais bien sûr que dañ koy séparer Public reportage bi nekk ci jeune Africain, yi boo ko gisee xam ne reportage parce que dañ koy dañ ko ciy bind bam leer nañ ñëpp xam ne lii publi reportage la. donc loolu la ñuy woowee naan ay président yu offrant yu ma xamul ça n'a rien à voir kooku service commercial du jeune Africain, ñoo koy dox ñoom ñooy ñëw ci réew démarche entreprise démarche démarché ñëpp bu ko ay page de publicité def un public reportage sur ça comprendre nga loolu bokul dara ak page rédactionnelle yi maanaam ñi nga xam ne journaliste nga xam dañuy ñëw enquête bind ci li nga xam ne moo xew ci réew mi. d'accord maintenant nag. Mhm. maintenant nag Jeune Afrique dafa am ay alliance am ay nit ñu mu xam man par exemple bi ma fa nekkee ak bi ma fa jógee am na chef d'état yu bari yoo xam ne dañoo am ay relation aduna noonu la c'est-à-dire xam nga nit ñi aussi bu ñu leen fenn parce que journaliste aussi ils ont tendance trop di di di wax loo xam ni nekkul c'est-à-dire que lépp loy liggéey da ngay dem ba da ci ciy ay nit dang ci ciy ay nit dang ci c'est aussi simple que ça donc xamlante bi ak duggalante bo xam dafa am sensibilité bu muy def ci yow c'est logique loolu aussi c'est la réalité et puis journaliste politique tu es obligé ngay wax ak homme politique yi wala boo xanaa ngay koo xam da ngay nekk di bind n'importe quoi loo xam ne xamoo dara ci li xew ngay bind n'importe quoi

donc il faut nga xam équilibre booy trouver ak ñoom c'est comme ça que d'accord voilà très bien alors nous disons que euh, pour euh, dépasser peut-être parce que li ñu également bëri na war nañu euh, discours au premier président de la république 1er mai mais là, laata nous ñuy wax tout à l'heure waxu ak ak yelleefu presse tey Sénégal gisoon nañ marche bi ñu un rassemblement nous avons def ñu ciy joytu lii di liberté d'expression wala liberté de la presse par rapport ak une agression yi fermeture a am wala fermeture un organe de presse couper un signal entre autres naka nga gisee ak ak yelleefu presse au ci Sénégal pour moi, le problème de la presse au Sénégal le problème liberté de la presse. c'est quoi exactement La liberté de la presse c'est-à-dire que pas lu wax. <laughs> lu pas bind. li di wax wala ñu Nous amuñ ci ben preuve élément. ah oui mais c'est la vérité. nga ce site internet gis la def moo tax àggaguñ ci discours premier mai bi mais le président la wax c'est très important pour man internetu Sénégal buñ ko régulé wul ci guerre civile lañ jëm parce que guerre civile boo gis ci Afrique wala ci monde bi ci saaga nday yaayu jàmbur ak papay jàmbur ak wax ci jabaru jàmbur ak ci yaayu jàmbur la jóge donc bu ñu arrêté wul violence bi nekk ci internetu Sénégal nga xam da ngay jël site bind lu la neex ci n'importe qui wax lu la neex li ngay dara 90% li wax fen la te koy def parce que xam nga boo boo ci sa di am jabar ju neex ni da ngay di nekk am say mais ay clavier di donc boo mécontent wee da ngay dem nga mais doo jël ay clavier di saaga ay heures sur 24. Mm. donc pour man loolu nécessité tout de suite alors, loolu presse avant le président di presse vous moo ci waroon parce qu'on ne peut pas permettre que n'importe parce que le journalisme métier de prestige la man Sénégal rek l'a dégagé, parce que le journalisme du bado Le journalisme du le journalisme du le Yamba, du naankatu Sangara. man France fait le journalisme France carte de presse Moi, fa ëpp doole carte ministre donc journalisme il faut que c'est un métier noble là journaliste dafa war a set dafa war a sol lu baax dafa war a rafet dafa war a dund dafa war a daf et puis c'est-à-dire dafa darawul fees bëtam euh, ki ëpp ay milliards warul fees sa bët président de la République warul fees sa bët parce que yow li ngay wax dëgg nga fi toogal ak yoon c'est très important léegi suñu problème pour man du ay problème mu liberté de la presse parce que ku au Sénégal ni amul liberté de la presse waxoo liberté de la presse sax moo fi les gens font n'importe quoi problème c'est mooy le métier bi loolu mooy wax bi. mais liberté de la presse yegg na euh, ci un préfet bi demander à ce que nous gazions les journalistes Et na ci ñu peut-être des chaînes de télévision comme Sen est-ce qu'on préfère faire gazer les journalistes tous les jours. parce que aussi nous jël ay épiphénomène nan nañu waxante dëgg préfet du jël tous les jours de gazer journalistes mais non, est-ce que faut avoir un am personne ne te le dit warul am mais dama la préfet, préfet toogul tous les jours de gazer les journalistes parce que aussi des fois gars yi dañuy yok. faut pas écoute problème de liberté à fi Fils les journalistes ñi ngi wax di bind li leen neex fait? fi benn journaliste bu ñu jël de la casse pour li nga bind. donc sitting bi amul. xëy non waxuma amul sens déedéet. ah d'accord li ñu war def exiger à ce que nous, code bi génn d'abord et puis ñu xool code bi ba paré codifier carte de presse ku remplir conditions yi doo am carte de presse bo bah, amul carte de presse do def métier bi jeex tak internet bi ñu réviser tewu ko ku remplir conditions ñu tecc site c'est tout comme ça léegi au moins ku bind nañ xam kan mo bind lu xew nañ xam kan lañ wara adresser mais lañ lay sag sax taxaw do xam kan ngay adresser wu nit day jël diffamé la def n'importe quoi te yow xamoo kan nga war a mais loolu aussi c'est du désordre ba pare naa la xamal benn affaire dafa am ñaari signes yoo xam ne day taal réew in encore une fois mooy saaga bi beneen bi mooy comme yi booy doon def bi manifeste di taal ay kër gis nga yooyu taal kër fu mu am ay Rwanda gis nga gis nga Côte d'Ivoire bi ñu taalee kër Ouattara taal yeneen kër yi fa la dëkk ba tàkkee taal ay kër wala saaga ay nit réew mu bëgg a tàkk rek na def ci na na na na na na commencé di def yooyu est-ce que xam nga li la donc il faut nit ñi bàyyi xel Nous ñun suñu problème moy il faut ñu assainir métier bi tek ay conditions yu leer pour être journaliste tek instituer une carte de presse ku amul carte de presse doit exercer métier bi ñi fi ce su ko journaliste bu ne xam nga li nga wara def ak li nga warul def su ko on va pratiquer le métier correctement lolu moy deug parce que attends jeune journaliste il faut ñu def autocritique dafa yomb trop ñun ñuy tok di juger nit ñi fu ñu toll di critiquer nit ñi te ñun duñ def jamais autocritique lu tax ñun ñooy ñan mhm. a ah, xanaa dañoo moom réew mi d'accord monsieur parce que mënoo non non man d'accord ma loolu de cest ñun on a des défauts suñu biir ñoo xam ni xamuñu métier bi xamuñu niñ ko war a defee di saaga nit ñi di def n'importe quoi xamal na respecté wuñu benn règle déontologie loolu il faut que ñu ne ko suñu biir nit ñi boo bëggee jox la cër da ngay jox sa cër toi ci sa bopp ba pare voilà loolu mooy dëgg. <laughs> alors euh, ni ki tey ji aussi ci biir sitting bi am na ay kàddu yoo xamante ni jëp jib na naqarlu nañ également euh, doxalin bi nga xamante ne CNRA mu ngi koy fagal di def ba jàpp nañ ne war nañoo xoolaat euh, taxawaayu CNRA bu fekkee dañu koy réformer également gis nañ nañu aussi secrétaire général SYNPICS bi jëkkati na ay kàddu pour ñu def comme yaa ngi koy wax léegi assainir milieu bi mais ñu def benn réforme profonde boo xamante ne ni dañ koy jagle li leen di secteur presse bi parce que gis nañ ne ay gàllankoor yu bëree bëri mu ngi dal ci ndodd ñi nga xamante

mono jël sa télé 24 heures di tirer à bout portant mais attends c'est du n'importe quoi aussi nañu waxante deug quoi média aussi dafa war équilibré quoi parce que yi Sénégal mais il y a beaucoup de télévisions elles n'étaient elle pas équilibrées. quoi. tu ne peux pas tirer dans un sens 24 heures sur mais lolu du journalisme. mais wane information bi sur le terrain moi tirer. lan ngay est équilibré. ce qui est non équilibre c'est très clair d'abord il faut nga déglu son de cloche bari le moins, premier principe équilibre deuxièmement li ngay wax ci boppam na am équilibre na mesurer mais tu peux pas attends, nañ waxante dëgg. waaw mais mais télé non journaliste la ñun événements yi passé y a des télé qui l'ont traité de façon déséquilibrée. mais télé yi ñu tëj télé yi ñu tëj muy Sen TV muy Walfadjri ndax yow da nga ci gis. belle. yoon non man du ma personnaliser débat. waaw mais parce que xam nga xam nga xam nga man du ma ce sont des faits yo, xam ne dafa am exemple. exemples. ay télévisions yoo man du ma personnaliser débat. ci benn période. man du ma personnaliser débat. Mhm. ay Sen TV Wal Walfadjri nit ñi dofuñu. Kéba Mbaye nee na réew mi guddi nit ñi dañuy teud, mais kenn nelawu fi fii kenn les gens ne sont pas dingues est-ce que tu comprends nit ñi télé tu comprends les télés doivent être sérieuses il faut être équilibré tu comprends équilibré télé c'est un instrument pour régler les compte politique ou télé c'est un instrument pour la nation tu comprends mono ñew parce que am nga sa télé nga ci wax lu la neex di def à boulet rouge pendant des heures amul ben équilibre l'ordre du journalisme. wa l'église léegi li faut def foofu lañ la bëgg aussi bi nga un exemple. non man la té parce que télé yoy aussi dañ doon joxé information. de jël toutes les parties concernées par cette affaire aussi. non information ak propagande du ben parce que on appelle tout information il faut arrêter information ak propagande du ben propagande moy tu tires d'un côté parce que dafa am idée boy véhiculer lolu de information. information c'est l'équilibre c'est l'équidistance normalement information donc il faut arrêter. Ah, donc ah, sur le principe nee naa la tëj télé radio. rajo dafa bokkul ci jargon démocratie man mënuma ko nangu mais loolu contrepartie bi mooy ñun il faut qu'on soit responsable parce que des fois on fait n'importe quoi c'est ça la réalité aussi non non xam nga aussi Cheikh Yérim euh, c'est c'est trop facile euh, rek nga des fois on fait on fait on fait du n'importe quoi non bu ma dara non non non pas tel télé mais au moins non non pas tel télé mais au moins il faut qu'on soit responsable et que nous euh, def propagande je pense que télé yi nga xamante Moi, ñu poser la question a été bien précise mhm. dañ la wax événement de fi et vous avez pris exemple même sur ces événements est-ce que tu télé yooyu dañu def lenn loo de ne dafa weesu li nga xam ne moo la comme seen la même réponse la lay parce que nous ma personnaliser débat bi dama ni la information ak propagande du Ben waruñoo tëj télé mais les télé doit faire l'effort d'être équilibré c'est du il y a amna ñuy def yo xamni c'est du n'importe quoi man journaliste ah li may wax lay xalat li ma lay wax c'est pas équilibré et puis ko xol télé yi demaat len ci film télé yu ever ngeen xol ba xam amna télé yu équilibré dem déet il faut, arrêter. Mais il y a aussi, des télés qui n'étaient pas équilibrés. C'est ça la réalité. Mais aussi équilibré, aussi, euh, doyen, euh, Westwood aussi, parfois, vous nous événement, comme vous venez juste de le dire, événement aussi, il y avait une partie, Quand qui n'es que invité sur le plateau. Non, non, non, euh, non, non, c'était des plateaux. Non, non, C'est des points de vue. Mhm. Man, télé Sénégal, c'était des plateaux à flux tendu pendant des heures où les gens tiraient à boulet rouge mais est-ce que c'est parce qu'il montrait ce qui se passait sur le terrain, cher Yérim Montrer ce qui se passe sur le terrain, montrer ce que... L'on dafa fait en commentaire. c'est un nak C'est un télé. c'est télé quoi. Mais en tout état de cause, c'est très simple. Man duma wax luma gëmul. Tu comprends yow Fatou Abou boo bëggee ñu wax bu ñu fayee caméra yi ma wax ak yow nga dégg la parce que man j'ai le courage de mes idées Je ne la bëgg wax affaire bimu y a des télés qui n'étaient pas équilibrées ce n'est pas sérieux affaire yi dañ ko war a teg ci yoon gis nga xam nga xam nga télé média du propriété nit du top intérêt doomu aadama non média même boo média des médias privés. tu fais une action de service public c'est très important service public mooy lan loo xam ne nii dafay jariñ askan wépp quel que soit le bord ils sont j'imagine que tel de il faut que les gens respectent un minimum de décence. non non non euh, Cheikh yirim mm. caméra yu tak ak caméra yu fay moom moo ci bokk yam mm. li nga ne bu caméra yu fayee nga le courage de de de vos idées ñun aussi caméra yu tak ak yu fay lañu am le courage de nos idées mm. liñ la laaj dafa leer peut-être bu go ci tontu wax nga yow ñun ñu nangul lako mais ñun aussi am nañu suñu responsabilité ni nga ko waxee euh, ay journaliste lañu nekk ci ay télé yo xamante ne mën nañu jël ci télé yooyu exemple que dañu leen tej et que télé yooyu en aucun moment mm-hmm. bi mbir yi amé def nañu lo xamantene wessuna sen liguey seen bi ñu waron def et c'est pas la première fois nous devons, c'est la première fois que nous ko le régime Macky alors que le régime d'Abdoulaye Wade nous fait un événement wala yow gardeel sa yaa ma interpellé. moom moo tax ne ma fayal moo tax man man ma gardeel avancer mën nañu avancer. man ak yow bokkuñu ni ñu gisee équilibre. c'est c'est waaw kon kon xam naa loolu la ñu avancer ci mhm. nekk nañ si terrain bi doon nañ ñëw mais dañuy relater li nga xamante ne mooy yaa ngi koy wax tout à l'heure euh, privé dafay def li nga xamante ne moo di service public mais gis nañ fi si ñi nga xamante ne si public bi la ñu nekk la ñu doon def moom moo weesu parce que génnewuñu woon li nga xamante ne moom moo même bu fekkee tiirewuñu comme li ngui wax euh, ci ci ci benn côté bi mm-hmm. mais gis nañ ne génnewuñu benn événement donc mën nañ wax né ñoom tamit équilibré wuñu mais fu mu toll nii fii ñu nekk ni ci Sénégal nam bu féké né yaa wax côté équilibre mais euh, gis nañ né bu baaxa baax kérok bi événement yi amé ci biir télévision yi on a vu que né les gens ont fait l'effort d'inviter les deux parties mais bu féké né benen partie bi bo leen invité du ñu ñeneen ñi aussi dañuy joxe seen waaw mais na ci yow da nga japp ni bu événement amé lepp lañ wara a wane li nga xamante ne ne moom mooy yoon dama lay laaj dama lay laaj yow da nga jàpp ni boo amee amee réew mi di tàkk lépp la ñu war a wax. les sénégalais ont droit à l'information du lépp la ñu a wax. dafal dafa nga ni les sénégalais ont droit à l'information dafal ndànk je ngay mhm. répondre. les sénégalais ont droit mooy lan. yaay sunu mooy sañ nga yow lépp lu xew réew mi di tàkk nga wane ko sañ nga ko. loolu mooy loolu mooy information. mais loolu du information. pour du information loolu c'est il faut avancer parce que polémique la indi fan la il faut qu'on avance. parce que information dafa ndànk information. da dafa dafa ndànk. Mhm. dafa am yoo xam c'est au-dessus de la liberté d'informer. comprends nga ma l'unité nationale c'est au-dessus de la liberté d'informer. la continuité de l'État c'est au-dessus de la liberté d'informer la sécurité de l'État maanaam dafa am yoo xam ni. moo ëpp doole liberté d'informer parce que bala ngay informer faaw réew mi nekk fi faaw karaange nekk fi faaw nation bi nekk fi boo détruire kaaraange gi wala nga détruire réew mi wala nga détruire nation bi koy informer ti man fi ma bëgg a ñëw euh, peut-être donc euh, liberté euh, d'informer dafa am fu mu yem ok man monsieur Segmoy, euh, pour reformuler peut-être la question de Fatima j'ai deux questions Moi, qu'est-ce que vous pensez aussi des médias qui n'ont donné aucune information par rapport aux événements qui se sont passés euh, c'est la première question la deuxième moi, j'aimerais aussi que vous nous préconisez peut-être des solutions par rapport à l'assainissement euh, des médias surtout ci côté site internet yi xam ni am nga euh, site internet bu tudd euh, Yérim Post et on sait que ku a peut-être procédure ouverture site ni muy demee amul daanaka ben sécurité pensez-vous que qu'un pays comme le Sénégal on est réellement en mesure de filtrer ou de bloquer ñenn ñu juk ne dañu bëgg am site internet comme ni ko yeneen Bon, yi di bon les médias média bu bonne Ben, information du média hmm pour nga nek média faaw nga joxe information. kon ni dul média bari nañ. non dama la joxe wo ben information loolu do média. média kay liñ lay soxla moy bu dara xewee nga wane ko loolu mom c'est clair euh, mais par contre assainissement bi ngay wax encore une fois je pense que amna responsabilité état bi mais amna aussi responsabilité corporation bi. xam nga amna yu bari ñu créé comme ay le tribunal des pairs ak yoy nga xamni dañuy bàyyi journal ñu réguler sen biir instrument yo mo wara dox. maanaam faw ñu xoolaat métier bi xool ku ko war a def xaw ku ko warul def xool condition yi loolu je pense que bu ñu ko assinéré def nañ au moins genn wàllu liggéey bi parce que j'imagine que képp ku remplir critères yi ba war a def métier bi war nga xam ni nga koy defee war nga xam li nga war a def li nga war a bàyyi loolu bu ñu ko defoon rek dina am benn wàll bu ñu dox li ci des nag euh, avec le temps xam nga réew aussi lu muy gën a moderniser wu médias yi di a moderniser wu Réumi aussi fi la ay normalement. mais vous par exemple dans Yerim Poste, pensez-vous réellement. que vous êtes en train d'équilibrer en ce qui concerne euh, les informations traitées parce que tout à l'heure vous avez parlé d'équilibre. Ah. Euh, vous avez même euh, mm-hmm. demandé à une certaine presse d'équilibrer dans ce qu'ils font mais vous. par rapport à vos sorties par rapport à votre site internet pensez-vous réellement que vous répondez à cet équilibre là. d'abord euh, Yérim Post il faut que ce soit clair Yérim sama tur a ci nekk mais ni nga koy liire noonu laa koy liire dafa am ñoo xam ne ñoo ci nekk di liggéey nekk une rédaction et cetera man su ma bëggee bind dara dama benn rubrique bu tudd sans langue de bois ci laa koy bind tu comprends mu lenn lii maa ko bind maa ko assumé ñeneen ci li def li def mooy couvrir l' information courante jeex na des deux bords nag te man damay lire post aussi te gisuma ci loo xam ne dafa déséquilibré wala quoi que ce soit et puis bon on est une plateforme d'idées aussi fexe nañ ba nga xam ni képp ku bind dara ci réew mi muy écrivain yi muy intellectuel ñun la koy yónnee donc plateforme de pensée la chaque jour nañ diffuser lu mat vingt wala trente ay contributions yoo xam ne ay borom xalaat ñoo koy xalaat di ko bind ñooñu nag fépp lañ bokk. am na ci ñu bokk ci nguur gi am na ci ñu bokk ci ñi bokk ci ku jege sax di bind foofu moo ëpp ñu bokk ci nguur gi parce que nguur gi amuñu ko leen bindal ay quelques gens ñoo leen di bindal ñi des ñu ci ëpp contribution yi ci ëpp ñuy publier c'est des contributions yoo xam ne waa opposition bi ñoo koy bind wala ñeen ñoo xam ne dañoo compte nguur gi alors alors alors bu ci ci peut-être euh, beneen euh, coow bo xamantene amna am mhm. euh, muy polémique bo xamantene yëkëti nga ko fan yee fan yee weesu comme ñu ngi rek ci mbiru taskatu xibaar. Mhm. et que cette série quand même amna succès bu mu am fi ci réew Sénégal maîtresse d'un homme marié nga ne ni ñu ko utiliser titré baaxul et que pendant six années le ministère de l'éducation nationale mi ngi mi ngi bàyyi loolu mu jall mu indi ben ben polémique bo xamantene amna ci. Mhm. ñi nga xamantene ñom ñoo ci yëngu na figure de style la boo xamante mën nañ ko nangul loolu nga xamantene moment am ci série bi lan ngay wat par rapport à cela. dama cay tontu lu leer la dama bañ rek ndaw Sénégal yi japp ni ni lañ wara waxe a français maîtresse d'un homme marié japp na ni ta xamna ni sax lool moy français kenn du waxe non français mais bo baye lool mu konné di law di law di law parce que ci tubaab kenn du wax yek ci kaw mën nañ ko wax ci wolof mais kenn do wax ci tubaab. kenn du wax wàcc ci suuf maîtresse mooy corowu góor gu am jabar donc boo nee maîtresse d'un homme marié mooy corowu góor gu am jabar nekk corow góor gu am jabar maanaam loolu kenn du waxee noonu ci français loolu nag dama jàpp ni mënuñoo jël loolu affiché ko ci ci arrêt car yëpp élèves di ko gis sénégalais yi di ko gis ministère bi nekk fi musu cee wax prof français yi nekk fi mosuñu cee wax damaa jàpp ni du noonu parce que xale yi mën nañ dem ba jàpp ni nii la ñu war a waxee français te waxewuñu noonu français. mais bu ñu nee maîtresse kese euh, spécifié wuñ ko aussi parce que maîtresse aussi bari na lu muy signifié. waaw mais français amul loolu. synonyme du tee du tax nga def redondance. d'accord loolu amul ci français. voilà moi je viens à ma question. Euh, tey euh, wax nañ liberté de la presse mu nekk lu nga xam ne retrouver nañ ko bu baax ci pancarte ñi nga xam sitting les journalistes que nous sommes euh, mais leneen li nga retrouver nañ ko aussi mooy la précarité des journalistes donc bu ñu assainir le milieu bu code de la presse génnee assainir le milieu nous nga xam ñoo des journalisme bi. Euh, ñi nga xam ne en tout cas war nañu exercer métier bi est-ce que ñooñu ci seen bopp actuellement parce que bu ñu gisee télé yi gis rajo yi gis site internet yi est-ce que le journaliste travaille correctement au Sénégal. voilà loolu nag mi ngi dépendre ci écosystème bi parce que presse bi nekkul ni rek moom cumm dafa nekk ci benn économie benn koom-koom benn environnement tey réew mi lu mu gën a développé rek média yi di gën a ëpp doole c'est normal parce que li développé presse bi diko jox xaalis moy publicité bi publicité bi entreprise yi koy def ci kom koomu réew mi la ñu lu kom kom bi gëna yok entreprise yi gëna am doole lu entreprise yi gëna am doole seen budget publicité gëna am doole donc tout est lié maanaam réew mi lu mu gëna avancer avancé réew mi lu mu gëna a dëgër économie réew mi lu mu gëna a baax économie de la presse di gëna a baax réew mi nag lu mu gëna nasax L'homme est faible entreprise est lu ñu économie de la presse di gën malheureusement. réguler la publicité aussi beaucoup na tey ci li nga point important yu nga par contre je suis d'accord. voilà par exemple parce que mënoo comprendre am média yoo xam ne état bi da di financer ñuy accéder ci publicité de la même façon que média yi nga xam ne état bi financé wu aussi c'est la vérité. c'est-à-dire mënuñu jël média bu mel ni RTS nga xam ne xaalisu réew mi moo koy financé nga jël publicité yëpp jox leen surtout la publicité institutionnelle bi jógee ci nguur geeg gouvernement bi bàyyi média privé yi Mhm. il faut la question que j'avais par rapport à la publicité moi euh, les journalistes est ce que est ce que les journalistes disent revisiter le métier de journalisme parce que pourquoi parce que dans les journalistes euh, man par exemple euh, dama spécialisé ou sur les questions de santé les programmes le ci les programme palu programme tuberculose nous ñëpp un budget alloué à la communication maintenant un journaliste comme nous, dañuy ñëw une émission et c'est gratuit ils ne payent pas est-ce que journaliste bi aussi Jotatul mu xam euh, rôle communication et rôle journalisme aussi parce que nous ci bëri réeree métier bi. dans le système anglo-saxon. boo le journaliste américain bon demee def reportage dañuy fay. dans le système francophone c'est différent dañuy dañuy teqale mooy question bi nga wax rédactionnel bi ak publicité bi. <laughs> Euh, donc loolu solution bi mooy booy dem nga ànd ak commercial <laughs> nga xam ni yow reportage bi ngay def dafay ànd ak publicité ci biir mais loolu si stratégie commerciale lu média bu nekk la Alors, alors benen point peut-être euh, nous pouvons ko voir tout à l'heure muy euh, euh, discours au président de la République bicentrale syndicale et donc déposé cette cahier de doléances peut-être discours a été apprécié de manière différente ñi peut que peut-être président de la République a xawoon un xadar que c'était le contexte avec le moment attendu naka nga analyser discours au chef de l'État voilà analyse bi ma bi analyse bu président dafa mer te mer boobu dafa fees ba mu ëpp loolu ñi koy conseiller en communication je pense war nañ wax ak moom parce que loo gis rek am na façon yu bari yu ñu ko mën a waxee cela dit euh, dans le fond comme li mu wax ñu grève moo ma gënal may wax lu ma dul def loolu baax na loolu c'est bon c'est-à-dire que dit que aussi boo nekkee kilifa da ngay fexe ba boo waxee sa wax bañ a randu <laughs> donc c'est mais ni c'est très important j'ai l'impression que depuis très longtemps depuis depuis temps vaccin il ba de président de mer te bu waxee rek ñu sentir ni dafa je pense que nous, koy conseiller en communication parce que euh, c'est vrai que contexte contexte est difficile pour moi, c'est vrai parce que ngay le Covid 19 le Covid 19, chaque jour réew day nga boole ci am crise sociale boo xam ni gaa yi xaw nañ tas réew mi bi loolu weesee après problème yi des ci nga war koo gérer te réew mi amul xaalis amul dara loolu loolu yombul loolu yombul vraiment loolu lu jafe la tey nekk président de la république mooy mooy liggéey bi gën a metti Sénégal guddi yi ñu toll hmm. waaye du tee nag faaw rek ak lu metti metti metti metti metti euh, nga masla je que ñi koy conseil en communication war nañ ko wax mu adoucir discours parce que mën nga wax li ngay wax nit ñi dégg ko te du ñu jàpp ni ngay wax ni xuloo la voilà man loolu mooy sama analyse. est-ce que l'événement Ousmane Sonko bi peut-être euh, mer boobu nga xamante ne yaa koy président de la République li nga xam ne le 8 mars. parce qu'il y' a une euh, période de vaccin mais est-ce que <laughs> du réellement réellement. les événements du 8 mars. il faut dire que depuis un an et demi président li muy pas neexul parce que imagine toi nga jël économie boo xam ni yow bi la éliré près année bi ci presque 6 de croissance épidémie bi ñëw nga jël toutes les réserves de l'État à dugal ci biir croissance bi chute ba 0,25 pour cent nga nekk ci année croissance négative nga jëm nit ñi gën sonn ba pare xaalis bi gën a raar économie bi gën a metti nga boole ci crise sociale boo xam ni crise politique boo xam ni xaw nañu tas réew mi xam nga yooyu yëpp boo ko boolee ba pare nag nga am ci sa kanam ma xool fii ak 2024 ñaat ñetti at yoo xam ne ñetti at yu metti lay doon parce que sur le plan économique day metti élection yi lu mu gën a jub si contestation politique bi di gën a metti ci comprends jeunes yi taxaw jël paaka teg ko sa bëli ne la farce nga joxoon ñu ay liggéey mais affaire bi yombul yombul donc euh, euh, yooyu yëpp boo ko boolee da xam ni joobu président fi ñu toll jafe na mais pourquoi le président enfin le premier mai c'est autre chose mais le pourquoi il est obligé chaque jour de parler de moi dans régime bi amul quoi il n'a pas de premier ministre c'est-à-dire vous vous, nekk en première ligne il n'a pas de premier ah. ministre c'est terrible hein. est-ce que le fait qu'il n'a pas de premier ministre mais pour moi, ce xew est dafa wane importance poste premier ministre wala le premier ministre le président a nommé un ministre d'État chargé de la coordination de l'activité gouvernementale Ko xamni ni au moins mën na paravant, par mais président ni mu ni en première ligne nga xamni ne lu ñew dal ci kawam mais c'est grave. est-ce que ce n'est pas lui qui l'a voulu. non man je pense que bi vous bi muy supprimer poste premier ministre événement premier ministre mais du pour du pour du woon pour man gëm ni dem rapidement parce que rek aussi primature aussi da une administration bu lourde boo xam da doon yeexal procédure loolu aussi dëgg la mais boo demee ba xam ni situation bi toll na foo xam ne ni soxla nga dox ku dox tampon mais da ngay da ngay revenir. xalaat nga poste premier ministre ñëwaat. non mën na bañ sax indiwaat poste premier parce que boo dee indiwaat poste premier ministre day laaj réforme constitutionnelle yëpp jaru ko alors que mën nga nommer ministre d'État, état boo rôle am mooy mooy coordonner l' activité xam nga jonn lan moo tax mu baaxoon fii. Hmm. mun Abdallah Jonn c' que soxla yu bari daawul àgg ci président par exemple enseignants yi waxal ak syndicat enseignants yëpp waxal ak syndicat médecins yëpp liñ lay wax dañ naan la bi fi jonn nekkee amoon nañ interlocuteur ba pare situation bi daan grave il est arrivé des choses très graves dans ce pays yoo xam ni jonn da koy dox ci suuf la ko ba mu ni kuuc te kenn du ko dégg donc rôle tampon bu am solo la doon joué et puis euh, kenn daaw ko gis aussi loolu taxoon mu efficace jonn parce que bon wanewul ambition nekkul au devant wanewul doole wala ni bëgg na dara te da doon defar affaire yi non dooy caaxaan donc ku mel noonu boo ko jëlee dindi ko fi yow tuddum kott dong nga des fi jàkkaarloog askan wi mais jusqu'à quand eh, eh, mais bu fekkee ni nag indiwaat premier ministre day metti ndax réforme constitutionnelle ak yooyu yëpp day metti mais nga nommé ministre d'état boo xam

non loolu ma may ñaa wax moom constat honnêtement Mais affaire yi guise moom kenn gisatul woon régime bi moom daanaka kenn gisatul woon le président il était démesurément seul loolu moom ñëpp ko gis loolu moom mais mais loolu aussi du lu bees parce que régime mu Macky Sall euh, par exemple défense yi Ablaye Wad amoon Ablaye dafa amoon ay nit daal xam nga li la Ablaye dafa amoon ay tampon je te donne un exemple mais régime Ablaye Wade t'avais même pas besoin de voir Ablaye Wade parce que boo mosaan gis Madické wala Samuel wala Karim Wade wala ñeneen ñu mel ni ñoom rek après t'as bëgg besoin de voir président maanaam régime Ablaye Wade dafa Ablaye dafa amoon régime daal am ay bànqaas yoo xam ne dañu téye woon régime bi am na ñoo xam ne da leen renforcer ñu téye affaire yi mais loolu la régime Macky Sall amul c'est-à-dire régime Macky bi mu commencé ba léegi loolu Ablaye Wade am amu ko. par exemple kan mooy Madické Niang euh, euh, Macky Sall kan mooy Samuel Sarou Macky Sall non je te dis lolo, lolo. ni ni jëflanteeg nguur yépp ci Sénégal xam nañ li wax tu comprends bon rôle bobu la jonn Dan joué tant bien que même ci presse bi ni. mais amna ñu baree bari ci presse bi ñoo xamni ni par exemple John mo doon sen interface man xamna naa média yu bari yo xamni ni nii mo moo sen interface ak régime bi ñooñu ñëpp bi jonn demee ba léegi dañu dañu coupé wu totalement du régime xam nga li na donc daal solitude bi xëy na peut-être affaire song ko daf ko explosé wane ko mais par exemple bànqaas yi nga xam ni moom la régime Ablaye Wade amoon taxaw ci régime Macky Sall mus ko am ba pare euh, maa ngi dégg Maodo Malick di wax naan pourquoi euh, Mame Mbaye Niang di wax mais Mame Mbaye bu waxul musiba am

da ngay xool ni li jóge ci médaille média yi bu waxee benn bu baax ci Macky dina wax fukk yu bon ci Macky xam nga loolu lan moo tax parce que régime bi moo amul masse critique régime bi amul ay bindkat amul ay waxkat amul ñoo xam ne dañu gëm régime bi nangoo xeex pour régime bi amul tu comprends ce qui fait que l'opposition, a dañ leen di médias yi journaux yi internet Sénégal par exemple nga journaux yi nga revue de presse les site internet yëpp euh, radio, nga déglu radio yépp déglu télé yépp nga quantifier nga def xool lan moo favorable régime bi xool défavorable régime bi c'est un rapport au moins de 1 à 10 parce que euh, régime bi amuñu amuñu veille amuñu alerte amuñu réactivité tu comprends ba ne peux pas comprendre nga yor nguur dans un pays ñu lay malmené Je man peux ko comprendre man peux ko comprendre. malmené c'est-à-dire. c'est-à-dire tey boo xoolal baax li ma la li ma la site ba yow journaliste defal test demain xoolal journaux yëpp liiral site internet yep, déglu rajo yëpp télé yëpp nga def médiamétrie xool quantifier les éléments positifs les éléments négatifs yii en faveur du régime yii en défaveur nga quantifier nga xool li ma la da ngay xam ni da ngay xam ni régime bi da ngay xam ni opposition bi maanaam ñi contre régime bi ni ñuy écraser régime bi ci média yi dafa ëpp. ok xam nga dafa ëpp. c'est trop. parce que régime bi amul réactivité tey par exemple Mame Niang bu waxul ak Abdou Mbow bu waxul. kan mooy wax. mais lan mooy cause manque de réactivité boobu noonu ci homme euh, homme nekk à côté du président de la République. je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas. peut-être manque de conviction la. mais en tout cas daal li ma la bëgg a xamal daal man boog sama constat lay def de ah. je pense que ñoom il gagnerait est-ce que c'est pas une stratégie politique le président Sall aussi parce que le président Sall c'est un fin politique euh, politicien donc euh, est-ce que c'est pas une stratégie pour mettre en place parce que aucun président ne souhaite nous malmener un peu partout dans les médias donc euh, est-ce que tout le choisir aussi cette stratégie nga am fin politique ah. situation politique yi fin politique nga mom bu yàggee ba do faatu. ou à défaut. fin politique kay mooy nga arrangé ba nga xamni ni. enjeu bo xamni intéressé na la au moins nañu dégg nañuy dégg sa baat sax. am réactivité xam nga voilà au moins. na nga nga proactif sax. au moins même bu fekkee ni sax même bu fekkee ni sax est une réponse. il faut parce que même bu fekkee ni sax parce que man je pense que ngour ak lo ñak ñak njariñ même bo dominéwul opinion bi war nga au moins diviser opinion bi. <laughs> xam nga la c'est-à-dire war nga am sa ambition même bu fekkee ni sax yow waroo def ay pexe. ba dominer opinion bi war nga mën a def ay pexe au moins. pour diviser opinion bi. Mhm. au moins nga fexe ba ñii am opinion favorable ñii am opinion défavorable. wala wala à défaut mu am. ay ay ay défenseurs sous-marins c'est-à-dire des gens qui font qui font semblant de l'attaquer alors que euh, ils le défendent. loolu moom xam nga ku nekk responsabilité nit la. Mhm. xam nga dans la vie ku nekk ak ce choix xam nga ma. àdduna ku nekk yaay xool ni nga bëgg nga def ko liberté nag culture individuelle la xam nga li la nit ku ne da ngay am sa culture liberté am na ñoo xam ne c'est vrai ay sous-marins te dafa bari nag dafa bari lool am na ci fune ne. am na ay patron de presse am na ay boromi télé boromi rajo yoo xam dañuy xëy suba wax fii guddi gi ñu dem palais lu ne am na fi. da nga ci xam yow. man xam naa lépp man li xew Sénégal yëpp. mais est-ce que doo ñu ci wax man yooyu dama man li Sénégal xoolal man Sénégal xoolal déglu baax li ma la. lu ma xamul Sénégal rek mooy lu ma intéressé wul réew mi lu fi xew dama koy xam loolu bari na fi mais li am solo du loolu xam nga li am solo mooy lan hmm? nit ku li ngay def. ñaari arbitre nga ci am hmm. benn bi sa conscience la benn bi sa diggante ak sa boroom la dégg nga baax li ma la nit nag soo dee dund da nga bëgg a nekk jullit da ngay gëm yàlla gëm yàlla mooy lan mooy nga xam ni dëgg dëgg maam Abdoulaye Ciss daa baax wax na ko nee na du wàññi fañ du wàññi wërsëg loolu nag croyance la nit ki mën na ko gëm mën na ko bañ a gëm loolu nag boo ko gëmee li ngay wax mooy li nga gëm tu comprends. Mhm. je pense que magum jëm mais monsieur Seck avez-vous avez-vous avez-vous je foofu laay daane leneen ne avez-vous écrit le le livre du président. livre président binduma ko. <laughs> te su ma ko bindoon dama lay wax sax plus grave su ma ko bindoon mooy gën fopp ni ñu ko bindee fuuf. Hmm. parce que du ma bindee nii. Hmm. livre yi laa bind man Afrique respecte la si gis nga lii maa ko bind c'est goulot étrangle Sénégal maa ko bind livre dafa baaxul wala livre yi boo ko liiree waxuma baaxul de dama leen livre yi boo ko liiree nga liir livre président xam ni binduma loolu parce que nag soxna si naa la xamal dama lay xam dama lay xamal benn benn affaire xoolal man bindantuwuma man du ma bindantu lii bu ma bind ku ko liir xam ne lii maa ko bind. texte bu ma bind baaxul ci niveau waxuma waxuma baaxul de. Hmm. ne baaxul dama ne la su ma ko bindoon ku ko liir xam ne maa ko bind. ci style ko bindoon te ma ko bindoon dama naan maa ko bind. mais lu tax ñu la koy jiiñ tout le temps moo ko bind moo ko bind moo ko. xam nga lu tax nit ñi ma ko jiiñ parce que gis nañ ñi parce que man j'assume mes rapports avec le président. Hmm. xam nga man bokkuma ak ñiy dem ci guddi gi di dem kër Macky Sall bu ñu xëyee suba noo duñ gisante ak Macky Sall duñ waxante man du ma genre boobu. man duma façon Bob, façon la hmm. Hmm? sama mag la je l'assume hmm. damay wax ak mom damay seq ak mom dama ko est-ce que Vous nga baax ma la dama koy wax parce que mo allez-y on vous écoute est-ce que vous avez que vous ma dit que vous avez bu ne ci pas mi dama koy boo dee assumé nag say relation ak président dañuy jàpp ni da nga nekk ci logique ku complot mais livre bi su ma ko bindoon dama xam nga tax am na ay livre chef d'état yu ma bind yoo xam ne damay ñëw ñu fay ma xam nga dama tax ma bind livre bi joxe ko bind naa ay livre ba taay bind naa ay livre interview yoo xam ne dama ko signe bind naa livre yoo xam ne signé wu ma ko parce que métier la nga ñëw ñu jox la livre bi nga ñëw ak président ngeen def interview nga dem bind livre bi delloo ko livre am mu fay la sa xaalis mais loolu bu ma ko bindoon dama naan maa ko bind mais ku xam ni may bindee man liir samay livre liir livre Macky Sall xam ni binduma ko su ma ko bindoon dama naan maa ko bind mais bind ma d'accord ñu ñëwaat un peu rek ci discours chef de l'État par rapport ak euh, fermeté bi mu am euh, biko syndicaliste yi waxee âge retraite bi ñu yóbbu ko 65 ans l'alignement mu bañ ne duñu ko yóbbu 65 ans euh, peut-être certains me diront que ne waaw peut-être par rapport ak ñi nga xamantene daf leen jël tek leen ci wétam ñu ne ay politique lañ âge politicien yi ak bu ñi nga xamantene ño ñoo nekk fonction publique bokul mais est-ce que tay jii jàppoon ne xaw am ben contradictoire un peu même si bu féké né wax na né peut-être permettre c'est pour permettre ndaw yi nga xamantene amuñu liggéey euh, ñu mën leen euh, jox euh, loolu nga xamantene xamante ne. soxna si yow jàpp nga ne aussi dañuy nekk ci réew moo xam ni population bi 70 pour cent de la population yépp ay ndaw lañu. Mhm. ngay yóbbu âge de retraite 65 ans alors que ndaw yëpp amuñu liggéey. mais am na ñoo xamante ne ñu ngi dem ba 65 ans. waaw mais loolu ay fonctions yu spécifiques la yooyu bariwuñu c'est des corps yoo xam ne du corps yu bari. Mhm. mais nga jël fonction publique bi yëpp jëpp retraite bi 65 ans y ci 5 ans yo xamni ndaw yo xamni ñi ngi am aussi c'est un problème wala nonu président nim ko la mais man dama ci d'accord mëno nek ci rew mo xamni ndaw yi amuñu amuñu porte amuñu place amuñu xey yow yaa ngi di milliards pour ndaw ñi am liggéey ba pare ñu la de la retraite à 65 ans c'est contradictoire voilà mais est-ce que vous waxeewuñu par rapport à euh, ñi que ñu a peut-être un âge âge retraite ou des retraités sax yoo xamante à euh, voilà là c'est une vraie question par exemple nous, avons fait une carrière depuis des années mhm. par exemple quelqu'un comme Moussa Fagnas, euh, osons dire les choses président de l'Assemblée nationale tiré au mu loolu kenn mënu ko comprendre. looloo tax nag loolu pourtant pourtant looloo tax ma posé les loolu loolu loolu moo ko war a accompagner maanaam rajeunir poste yi dans l' état. nga xam ni yi aussi dañ leen di mën a jox seen wàll ci yëf yi. je pense que c'est ce la doon parce que moi je ma ne la peut-être poste politique là parce que nous, avons dañuy jàpp ne ay politiciens mais gis nañ entouré yépp ci poste de responsabilité Nous avons des ñu yor ay mag la yoo xamante ne war dem à la retraite non non, dans l'absolu on est parfaitement d'accord c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un pays aussi ba pare li tax def ay ndaw ci poste de responsabilité yi baax mooy euh, àdduna dafay dox Euh, te jamono bi ni muy doxee ak technologie bi ni mu bindoo li ma jàpp mooy loo gën a ndaw gën a xareñ donc bu fekkee da nga am ambition yóbbu fu réew mi sori yóbbu fu sori doo jël ñoo xam ne nii yaa xayti mu laan modernité bi bàyyi na leen fi yàgg na mhm. seen jamono wéy na yàgg na nga jox leen poste yi bàyyi xale yi

taxaw na ci bu CEDEAO jëlee ay décision yu nga xamante ni xëy na ko arrangé ñu gis ne ay sorte da ci am ba léeg-léeg di euh, ŋàññi yenn yenn dogal yi. bon d'accord accord xaaral ma wax la li ma ci xalaat. Hmm. dama lay wax en tant que juriste. yàlla dafa def droit la jàng. ci décision justice boo gis dafa am ce qu'on appelle appréciation en opportunité et appréciation en légalité maanaam li ngay àtte mën nga ko teg ci loi walla nga teg ko ci li nga jàpp ni moo war a doon décision bii nag CEDEAO daf ko teg ci loo war a doon dafa apprécier en opportunité te CEDEAO warul xalaatal Sénégal ni muy organiser élection ah parce que réew mu ne danga am souveraineté pour organiser ces élections. ba paré amul ben démocratie au monde amul bo xamné amul filtre pour candidature présidentielle parce que si deful filtre waxuma parrainage bi Macky Sall def pas na parce que nim ko défé ou Mëno ñëw yow nek candidat imposé parrainage par force imposé, ko ñëpp té concertation amul décision bi dafa faire a opportunité pour classe politique bi yëpp taxaw ñu waxtaan ci parrainage bi ñëpp d'accord ci mais parrainage mënta bañ a am tey France pour nga nekk candidat dafa am ay nombre de signature maire sénateur député yoo xam ne boo ko amul doo nekk candidat États-Unis filtre bi foofu la gën a mette da ngay def ay primaire boo xam ne moo gën a metti sax élection bi tey bu ñu ñëwee ni ku neex nekkal candidat xam nga ni ku bëgg a saboter élection yi saboter ko est parce que il s'est fait qu'un ben de que tu drogues nous dire qu'alice question 50 millions là nous financer 200 personnes qu'est-ce il y a que élection parce que 200 personnes les candidats la boy des journal de campagne il y a qui 8 h 3 h du matin tu as qu'à parler d'accord jour où voter, comme loi tu d'afni bulletin il vous que tu es pour voter pour ben dit donne voter t'as bien d'un bu ben nit waré jël bulletin yoy rek pour dugg ci urne bi dina jël 10 fois fuk taw fuk nit yu ñu waron jël donc xam nga ni kon filtre bu amul élection mën naa bañ am donc par force par force parrainage dafa wara am. mais manière bi mom la CEDEAO wax. Ah, da wax xaaral rek mo xaaral señ bi xaaral rek soxna si rek mo wax. donc CEDEAO du mom mo nan parce que CEDEAO xam nañ bu baax ni liberté bo gis constitution liberté bu mu maye. dafa am liberté boobu nuñ ko ñage tey xam nga par exemple am na liberté manifestation mais doo jóg rek manifester ni nga amee liberté politique pour nekk candidat doo jóg rek nekk candidat amul ci démocratie dafa am condition yeneen ñuy teg yoo xam ni moo tax léegi nag est-ce que parrainage yu Sénégal bi baax na loolu mooy débat bi parrainage bi même bu baaxee ni ko Macky defee baaxul dafa war a woo acteur politique pour man parrainage bi dañ ko war a dugal ci jarab politique bi acteurs politiques yëpp toog waxtaane ci ñu xool ni mu gën a jekke ñu defe ko noonu mais filtre moom pour nekk candidat dafa war a am ci élection Sénégal loolu moo tax d'accord ma ci décision bi CEDEAO jël parce que du ñoom ñooy jugé opportunité ni ñuy doxalee ñun suñu vie politique na det autant j'étais d'accord avec eux ci li ñu wax ci Karim Wade parce que loolu problème mu liberté la mm-hmm. autant j'étais d'accord avec eux li ñu wax ci Khalifa Sall parce que problème mu liberté la autant je ne suis pas d'accord euh, ci affaire parrainage bi je ne suis pas d'accord. tontu ci dina naan recul peut démocratique la ci man su ma amee xemmemteef bi dem présenté wu te dara du ko du ma ci am benn gàllankoor nen nen ne également wala Mouhamed bu gisee ne tey mën na mu doon citoyen sénégalais bëgg na jël réew mi dem présenté wu comme ni ko tey président Macky Sall euh, ni ko ko yoon maye est-ce que loolu du recul quand même ci ñuy segg segg boobu noonu nga xam te amoon na kilifa yu amoon mbëbët li pour doon njiitu réew loolu moo leen téye waaye segg bu amul élection amul dara amul amul. mais élection yi passé. mais dañuy segg ba c'est rek uh-huh. discuter discuter. bi. mais segbi, bi discuter. parce que amul démocratie bu sérieuse par force ñu seg. ni ñuy segg nak mom mën discuter bu démagogie parce que bu ne bu ne ku ne bu ne boo nee bu kenn segg ku bëgg a yàq démocratie Sénégal yàqu ko parce que fonction présidentielle lu sérieux la lu sérieux la n'importe qui warul daggate làng rek ni day nekk candidat. Hmm. d'accord nga ci ñu génnee fi parrainage wala ñu continuer di segg. parrainage bi kenn waru ko fee génnee. par contre par contre parrainage bi dañ ko war a waxtaanee comme Macky Sall teg na ko classe politique bi d'accord ci dañu war a toog waxtaanee ko. xamal ma société civile bi par exemple xam nga société civile ci li lañ koy xaare par exemple situation bu mel nii société civile bi ñoo waroon jël thème parrainage mas naa ko wax benn jour société civile ñu war a def ci Sénégal mooy dañu war a def les assises de la démocratie mooy lan dañu war a dajale xeltukat yépp boroom xam-xam yépp dajale société civile bi yépp ñu toog waxtaane démocratie Sénégal point yi ñu war a waxtaane pour man parrainage bi ci la bokk raw gàddu ci la bokk parce que raw gàddu du démocratie ci la bokk caution bi caution bi ñuy fixé pour nit ki fay ko pour mën a candidat ci la bokk dégg nga wax statut président de la république vous gagnez, ba pare est-ce que day nekk chef de parti wala dafay faites connaître loolu ci la bokk liberté liberté assemblée nationale parce que Sénégal principale faiblesse d'une démocratie faiblesse de l'Assemblée nationale qui la beaucoup. et puis relation entre justice et pouvoir judiciaire qui la beaucoup. pour moi, dafa am point yo, voilà moi, point faible sur nga point faible la démocratie Lolo suite à vous que je les assises comme nous les assises nationales nous devons les assises de la démocratie point non ñu jël ko non ko non non non mais est-ce que non Non, non, non, non, non, non, non. non dialogue politique dialogue national souvent. Euh, même après. responsabilité. c'est-à-dire que da nga bëgg a démocratie jàkk Sénégal te da ngaa digg doomu dajaleel ñëpp dajale borom xam-xam yi ngeen waxtaan trouver formule yi gën a équitable yi gën a digg dóomu nga proposé buñ ko defoon yu bari dina jàll par force par force parce que opinion bi dafa am lu muy jouer aussi ci ñuy jiite mais mais mais Cheikh Yérim yaa ngi koy wax Sénégal dafa bokk ci CEDEAO ak yeneen i dëkk bu fekkee ne euh, CEDEAO dafa génnee li nga xamante ne wax na ko ci parrainage alors que le Sénégal tout le temps dafa wax nañu respecter institution yi mu nekk benn institution communautaire est-ce que Sénégal war na ko bañ respecter même si on parle de souveraineté. waaw mais CEDEAO bu génnee loo xam ni parce que CEDEAO c'est pas Dieu. ça on en disconvient. CEDEAO du yàlla. ba pare CEDEAO enjeu yi ñu leen di xaar duñ ci duñ leen ci gis mukk la preuve. Macky Sall bi mu parrainage bi à 6 mois avant l'élection, lan la lan la CEDEAO wax te pourtant loolu surtout démocratie CEDEAO daf ko dàq Buñ démé ba élection yi de 6 mois lepp lu jëm ci élection yi kenn wa ci soppi dara. Macky Sall soppi na lan la CEDEAO wax. Alpha Condé la li mu def Guinée ni ak euh, ak Lance ak Alassane Dramane Ouattara li def Côte d'Ivoire lan la ci wax donc CEDEAO fan leen di xaar duñ ko wax fan lañ xaarul ak lañ warul wax lañuy wax lañ war a def duñ ko def. d'accord nga ci CEDEAO des présidents. non ok kay non CEDEAO non kooku ñëpp xam nañ ko. <laughs> tey bu ñu amoon CEDEAO des peuples lii xew yëpp du am mais CEDEAO syndicat chef d'état la yoo xam ne dañoo ànd di protéger ku nekk di protéger sa intérêt morom donc fan lañ doon xaar gisuñu leen fa mais amoo taxaw lu ci CEDEAO limu sanctionner le Sénégal ci régime Macky Sall sanctionner wu ko euh, peut-être ci ci régime c'était nga sànq le cas Karim le cas Khalifa beaucoup de sanctions au Sénégal bi am venir même l'image du Sénégal parce que lenn rek la parce que lenn rek la léegi la nit ñi gëna dem CEDEAO rek mais Ablaye Wade aussi non Ablaye Wade aussi def na fi ay violations yo xamni ci droit nit ñi mais ñepp gis nañ ko député yi mu fu tëj kaso sans lever l'immunité par exemple le dossier Idrissa Seck c'est un scandale total est-ce que xam nga ne donc je veux dire les la nit ñi tàmm gën dem CDAO depuis bu fekk Karim Wade demee ba légui c'est tout mais je veux dire violation yi li Macky Sall di def mom la Ablaye don def. mais parce que aussi. ça ternit pas l'image du Sénégal su fekkee ne loo xamante ne nañu ko fi wala ñu nang ko fi bu démé CDAO nénal ko wala mu épinglé. non man dal euh, sur le cas Karim Wade je suis parfaitement d'accord avec la CDAO parce que créé du respecter droit de la défense sur le cas Khalifa Sall en tant que juriste d'accord n'a bu bah ak parce que waa dit ko élire député dañ ko waroon lever immunité buñ koy poursuivre ñu continuer à poursuivre ko c'est du droit mais système électoral au Sénégal tu juges pas en légalité tu juges en opportunité si tu juges le droit d'organiser la compétition démocratique au Sénégal je ne suis pas d'accord est-ce que a prérogative au-delà de ça bi la ñuy est-ce que enjeu ça intéresse est-ce que enjeu ça défend l'intérêt stratégique du Sénégal parce que moi, ce qui m'intéresse c'est pas ay ce qui m'intéresse moi, l'intérêt stratégique du Sénégal L'intérêt intérêt stratégique du Sénégal d'où ngay organiser élection yo xamni ne ku nek day ñëw di bok ñu démocratie L'intérêt intérêt Sénégal moi nous devons filtres yo candidats sérieux pour mëna le candidat. mais est-ce que le conseil constitutionnel aussi est libre pour euh, valider normalement euh, candidature est-ce que. Euh, le conseil constitutionnel est-il assez libre pour valider normalement euh, les candidatures. mais le conseil constitutionnel le cours rek bu juste ci justice du Sénégal xam nga Sénégal lu lu nekk ko ci sénégalais policiers magistrats journalistes yi ñëpp ay sénégalais lañ affaire bi aussi bu ñu naxante <laughs> c'est-à-dire que ni journalistes yi mel policiers yi mel ko sénégalais lambda mel ko noonu la juge yi mel maanaam kenn jógewu fi asamaan fii ni sénégalais bi mel rek ni muy comporté wu xam nga xam nga déjà xam nga xam nga Afrique li ñu war a njëkk a changé Sénégal li ñu war a njëkk a changé pour man mooy rapport bi ñu am ak nguur déjà rien qu'un gour, pouvoir nga tout ko gour c'est un problème parce que pouvoir quest war ko d'un nguur parce que moi, moi, mooy njoowaan quoi Gour, moi beaucoup un doon beaucoup de traduit français mon jouissance alors que pouvoir de jouissance pouvoir responsabilité mais déjà beaucoup de gour nguur rek wax président de la république doon ni jiitu loolu rek déjà c'est un problème xam nga problème yooyu déjà boo ko réglé woon ci sémantique rek déjà da ngay fausser le rapport au pouvoir loolu nag li mu nekk ci bopp nit ñooñu mooy rejet ci yëpp mooy feeñ ci ni conseil constitutionnel di defee mooy feeñ ci ni justice bi di defee mooy fenc ci lépp d'accord est-ce que rationaliser nee na s'il te plaît benn question rek rationaliser parti euh, candidat yi plutôt est-ce que nous ko mëna tambali d'abord rationaliser parti politique politiques parce qu'au au Sénégal euh, <laughs> xam nañu politiques parti politique également euh, ça pose problème ku ne créer parti e réew mi am trois cent cinquante partis voilà nak nga mëna a comprendre mm. réew mo xamné amul 15 millions d'habitants bu amé trois 350 partis politiques dafay wax potentiellement mëna am 350 candidats legi candidat élection te te parti politique yoy amuñu siège sen fonctionnement parce que parti politique yoy loi bi mo len teg da nga am siège am adresse fu len leen mën a fekk seen compte khalis bi sen copar at mu jot da nga doon def bilan yone ko ministre de l'intérieur tek len charte yu bari charte yoy parti yi respecté wuñ ko mais dañ parti yi ko respecté dañ leen won tek ay daan dissoudre len taf len su ko defee parti yi nga xam ni moo kon ne di nekk ay parti mooy parti yi nga xam ni ay vrai parti lañu loolu aussi dafay bokk ci li leeral démocratie Sénégal mosul dépensé mosul dépassé 15 peut-être candidat à élection présidentielle aussi euh, même si filtre am bi passé ñaata nit lañ téye ci ci parrainage bi ñaata nit lañ téye ci parrainage bi bari nañu voilà alors euh, peut-être euh, bu faites mën nga ñu ko une dernière question euh, waaw ci ci local yi ñu boole ko peut-être ak mbiru Ousmane Sonko yi dégguñu la ci bi mbir yi amee ak mais bi mbir yi jeexee gis nañu ko mu defaat beneen sortie que ñu ngi woon ci discours du président de la République Nous mu defoon le premier mai moom mu génn également yëkkati ay kaddu yoo xamante ne ci rapidement rek ban lecture nga am ci loolu nga xamante yëkëti yëkkati ci ci kaw discours du président de la République Euh, man Sonko dama gis ni dafa dafa dafa dafa xaw dafa dalul temps hmm. yi. waaw man su ma doon conseiller communication dama naan ko mu dal tuuti. waaw no même mu nekk ci réeram pour man waxam dafa commencé bari. ah oui waaw <coughs> c'est-à-dire que pour man ah moment bi day moment boo xam ne dafa war a jël recul. xam nga ma analyser li xew. tu xalaat ci gën a defaraat stratégie man su ma ko doon xalaatal loolu laa koy wax. Euh, maa ngi gis Samuel Sarr bind benn du tudde ko Petit Sonko tais-toi et cetera. Mhm. Euh, ni mu waxeek moom lu lu waar la. parce que kenn du waxeek noonu nit. mais boo déggee li mu wax man su ma doon mooma ñi may xalaatal dinaa leen wax ñu liir li li Samuel wax. lire ko pour lan. yaa wax ne waru ko woon wax parce que dafa war a waxin wi waxin non xam nga li nga wax ak waxin wi du benn. damel man digal Sonko dama mu dal recul parce que les gens ni vague bu fort la bo xamni bo émotion bi ko la preuve <coughs> Sonko wax na fi ci xawma jot na xawma tout ça amul ben impact. <coughs> est ah non non non non mais l'eau, dang ko bu ni wax nga wax kenn yoonu kenn newu ci la le lendemain nga gis titre journaux yi ñëpp jël Macky Sall def ko àlla la une yow li nga wax kenn waxu ci mais loolu da nga war a xalaataat donc pour man Sonko dafa war a dal xoolaat jël recul parce que communication dafa am phénomène de saturation <coughs> wax dafa am fu muy toll foo xam ne kenn dootu la dégg mooy li ma wax rek ñu ma ne bi li tax bi événement yi am yëpp waxuma c'est que

te ci politique day tollu moment yoo xam ni silence noppi moo ëpp doole wax noppi moo ëpp doole wax xam nga ci politique da ngay tollu moment yoo xam ni wax lu baax sax noppi moo koy gën Nous dafa am stratégie de communication euh, wax nga ko président Macky Sall entourage am ci communication est-ce que euh, ñi nga xam nous, nam de Sénégal fait un travail ci ñu wër la ca itam faire communication parce que impact bu un def dafa solo ci entourage ak seen jëf ak activité ci ñu xel lolu bu baax a ñuy comme il se doit ci activité publicité. waaw man dama jàpp ni politique communication def ci am solo. ni ngay waxee li ngay wax fi nga koy waxee ak jamono ji nga koy waxee loolu pour man c'est trop important ci politique. jàpp naa ne politicien bu ko réussir sax foo bëgg àgg di fa àgg. loolu nag boo ko foosee ak noo mënti demee. parce que noo mënti demee boo waxee foo warul waxe wala nga wax jamono boo warul wax wala nga wax loo warul wax. wala nga wax ko anam boo ko warul waxe rek li muy yàq moo ëpp li muy defar. am na ci poids. waaw lu daf ci am solo lool. daf ci am solo lool lool léegi Sonko li mu def euh, lecture bi mu def ci discours président Macky Sall bi peut-être yeggale woo juste la forme mais le fond. non lecture bi avem la c'est son avis. Mhm. et puis il est dans son rôle. opposant la président jël na position critique na ko on d'accord na mais dama ni la parce que man damay suivre Sonko.

ñu teg ko méngale ko sotteem yi mu mujj def ni mu mel dina xam ni euh, dal ni réviseur stratégie am xoolaat defaraat pour ñëwaat moo gën waxam moment bi sama gis-gis

mais sànq mais sànq non mais sànq li nga wax moom amitié la parce que yaa ngi koy wax. déedéet dama ne man. am naa firnde. am naa yàqin ni président yéen na ma jàmm. xam naa raison yi tax mu wax loolu. nit ki nag bu la yéenee jàmm da nga koy yéene jàmm. moo tax ma yéene ko jàmm. tey il m'arrive ma gis doxani réew mi ma jàpp ni lii bu ko defee moo gën pour réew mi ma wax ko ko il m'arrive ma ne ko président mu ma bind ko ne ko lii ak lii di gis naa lii fa la du sama xarit parce que du sama moroom bay xaritoog man <laughs> yaa ngi dégg mais yéene naa ko jàmm. mais ba pare ba pare ba pare encore une fois. Mhm. transparence dafa baax xam nga lan mooy transparence mhm. Mhm. mooy nit doo comme nuñ koy waxati sax doo nuñ koy waxati sax de doo doo doo ëf ci kaw nuñ koy waxee nuñ koy wax sax ci wolof. matt di ëf man. gëw c'est-à-dire maanaam guddi gi. nga dox dem dugg ak Macky Sall wax ak moom li ngay wax ak moom. Mhm. yow yaa ngi. loolu wax nga ko dégg nañ defal ndànk rek. yaa ngi wax ak Macky Sall loolu dégg nañ ko loolu tax ma permettre mu defal ndànk rek transparence dafa baax. te loolu moo amul Sénégal. tu comprends. Mhm. nit ñi dañuy jëflante ak Macky Sall. ci woy politique yi génn wax leneen. Mhm. wala ñuy incarner leneen. man defuma lool man.

sama papa gaañu mu ñëw jaale si ma donc ñu am rapport yooyu loolu sa ça date de plus de dix ans. donc du rapport amitié. dafa ndànk du amitié kóllëre la xam nga Sénégal ñëpp ay wóllëre lañu. yaa ngi dégg ñëpp ay wóllëre lañu. Sonko euh, man bi ma koy njëkk a gis mooy bi ma ubbee Yérim Post di ko interviewé première interview bi ma def Yérim Post moom la. Mhm. bi ma ñëw ñu def interview ba pare ñu waxtaan ma gis ni aussi nit ko am ay idée la. et puis euh, am na xadar te am na lu mu bëgg te projet bi gëm na ko parce que waxtaan nañ ci mu wax ma ci lu bari daal loo xam ne xam ne nit aussi buy wax euh, li muy wax bu ko ñoree boo yàggee dégg da ngay xam ne kii li muy wax ñor na ko. tu comprends. Mm. donc foofu la ñu. c'était quelle année. Euh, c'était quoi c'était quoi il y a quelques années il y a quelques années il y a deux ou trois ans. Mm-hmm. après loolu aussi waxtaan naan naan ci réew mi bon bi muy def dédicace su livre am aussi invité na ma. Mm-hmm ma ñëw poser ay questions affaire mhm. voilà mais je veux dire relation bi ma Macky Sall nga ça de dix ans ma Sonko. du du ma ni Macky Sall def dama koy wax ni Sonko wax tu comprends. maanaam man Sénégal faraluma kenn man faraluma kenn man su ma far far far hmm? damay journalisme dem dugg ci parti parce que gars yi li ñuy def ci parti dàqu ñu ma ko dàqu ñu ma wax. donc amoo ambition. non dafa sànq au départ yaa ngi wax ne ku nekk am na koo xamante ne moom moo nekk ci sa xol moom nga bëgg. non damay voté c'est contradictoire alors. non man damay voté. Hmm. non damay voté. man Sénégal bu. kan na koo faral non defal naa non mais damay voté. vote vote ak fa mais attends candidat yi bu ma leen xoolee man Sénégalais la réew mi dama fi dama fi am ay intérêt donc. candidat yi bu ñu taxawee ki ma jàpp ni kii ki ma jàpp ni kii moo mën a yor réew ba réew mi baax ba li ma li ma fi amakus néew mën a ñoŋ <laughs> mais kooku laay voté te comme man damay voté de man je ne vote pas blanc man damay voté. da say intérêt mën nañ xam nga lu baax xam nga baax na nga man dama sénégalais laa te dama bëgg réew mi dox donc candidat yi dafa am ñoo xam ne ñoo ma gënal loolu du ma ko nëbb de. alors mais par contre loolu bokkul ak sama métier journaliste dara.

politique yóbbul fenn réew parce que Sénégal ñu ngi politique 61 ans dara xew fi dañ bàyyi politique léegi dama jox ñaari livre yoo xam ne maa ko bind